gaay na gaay na eh Biggi man gaay du ma leen daw nii. xool lii liggéey bi rafet na ndax paa yi nii. kon doomu xaraam day sànni beneen ki moom day gaañ sa bopp sa waay yi bu ko tax laal moo ko rek dem waaw eh, waxal yow maa ngi door a yegg si. maa ngi door a ñëw. waaw fan nga ñëw maa ngi dugg. waaw yéen a ngi door a ko doon ñëw. journaliste yi dañ koy génn. journaliste la ñuy door la ñuy door lacrymogène et c'est pas la deuxième fois ni la troisième fois malheureusement. Thank you.

à la place de journal, à la place de manifestation journaliste. On est là. On est là. Comment on va faire pour travailler On est là, on parle la personne. Ah, mais... C'est pas la je dis, pourquoi tu parles Non, non, pourquoi tu parles Allez, ici, là, côté quand même, ne pas se Côté le milieu, Allez, pas côté. Non, mais vous Allez, ici, pas Vous avez dit pas sur la route, mais sur la chaussée. Comment on a Pas sur la route, ni sur la chaussée. bu ñu demee féetewul ñu ñu taxaw ne kenn taxaw on est pas on est des dinaaj. on est on est pas de Congo on est des dinaaj on a un bala. on est pas de. Thank you. Touré Ndeye suñu waaw kii doomu xaraam la

mbokk ñu seetaan ngi leen di dalal ak jàmm si seen site d'information générale tey comme li ngeen ko xamee collectif bi ñu tuddee ñoo lànk tey mu ngi taxaw fii si centre ville de Dakar ñu fas yéene woon a def fii mars si place de l'indépendance ñii di takk der yi nag bàyyi ñu leen si parce que ñoom teel nañu def seen mobilisation teel a jokk dajale lépp li xam ne moom moyen de répression ngir bañ loolu di manifestation bi am fi comme ni leen ko wanee si image yi am

Macky Sall yokk ndox mi ak courant bi béykat yi amuñu problème euh, Macky Sall yokk na ndox mi ak courant bi béykat yi amuñu problème. C'est euh, un journaliste, faut pas le bousculer. Ok, waaw jàmbur waay mu liggéey waaye baa ko mu liggéey man baa ko mu liggéey baa ko mu liggéey man da koy bàyyi da koy bàyyi waaye yow yow eh dañuy liggéey loolu teel a def suñu job. Je me bats.

yaa murit yaa bëgg nekk yaa yow muy ay ay yaa yow muy